واغتنا من إلى الإسلام مع ترك المحال جواد وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله sallallahu alayhi wa sallama wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim niñ ko baaxoo fan yi yëpp weer ak lu teg mooy di tàmbalee bind bi euh, bokk ak suñu mbokk yu baax yële ca Gaza suñu gor yële ca Palestine natu bu rëy bii kaar yàlla nattu leen te nattu bi bañ ko commencé fexe ëpp na téeméeri at ëpp juróom ñaar fukki at ak juróom ah nattu bi bañ ko bañ ko commencé dund ak léegi ëpp na juróom ñaar fukki at juróom jamono yii nag donte musiba wu ne xew na fa eh, dafa gën a takarnaase foo foo dàkk ñaawaay bi rek ëpp na ko donte nag ba bi amoon ñaawaay ba ëpp na ba mu ëpp la ñu déplacé ak li ñu rey ci ay góor ci Palestine jël seeni dëkk waaye booba xëy na caméra yile le newuñu fa woon di wane lii xew tey nag caméra yaa ngi wane lii xew ay xale yoo xam ni ay prématuré lañu ñuy bombardé hôpital di sax dugg ci biir hôpital di génnee ñi feebar génnee médecin yi génnee lépp loo xam ne lu mën a faj la ak ku mën a faj am ñu ñu rawale yóbbu Égypte am ñu dee ay junney junney xale ñu bombardé seeni kër rey ak seeni baay ak seeni yaay kenn xamul ñaata journaliste ak ñaata liggéeykatu Nations Unies la ñu rey te àdduna yëpp di ko gis bu ñu tuddee Ukraine lu fa xew danañ ko waxee noo xam ne dangay foog ne àdduna baa ngi bëgg a tukki te moo jaadu wante bu dee la njiiti àdduna yëpp wane ak naafeq gu mat sëkk waaye nag àdduna bi bari nay gor ndax li feeñ ci Occident ci ay doxu ñaxtu capital yi Occident yëpp génn par milliers yi par centaine de milliers am yoo xam ne par des millions ci ay gor yuy wane ne li jaaduwul ba tax mu def benn pression ci njiit wante jàmbaar jàmbaar yi nga xam ne ñoo nekk ci alkataib ci fasailil muqawama rawatina kataibu izzuddin al qassam wane njàmbaar goo xam ne àdduna fooguñ woon ne amatina mukk ba noon bi di armée israélienne ak ñi leen yilif xamuñu ñaata lañu ñàkk ci militaire waaye góor yooyu it ak luñ leen mën a waxal fexe nañu ba lépp lu leen seen diine tere ci rey xale mbaa mag mbaa jigéen mbaa ku xarewut mbaa ku nekk ca këru jaamu am di jaamu ñu sàmwanteeg yooya donte lu ne waxal nañ leen ko ay xabaar yu wér wane nañ ne ndekete festival musical bañ doon wax ne Hamas ko bombardé sax avion ba ko avion Israël la waaye boobu dañu jaxasoo ndax seen système yi yëpp a jaxasoo ñu def musiba boobu ci seeni kaw réew ba pare tuumaal ko ay gor ñu ñaan yàlla may leen dëgër may leen ndam ci kaw nooni lislam ci kaw nooni nite ci kaw seen nooni bopp ñuy asahayina ndaxte ay junney junney yahud ñooy génn fu nekk ci àdduna bi di dénoncer li xew ngeen xam ne kon du diine waaye mouvement politique la bu utiliser diine ay gor ci biir Israël wala li ñuy tuddee Israël ndax Palestine la tey maa ngi seetaan benn jàngalekat boo xam ne ci ay postu Facebook am muy wane ak di ñaawlu li xew ci lañ ko tëjee nangu licence am mënatul a jàngale ku wax rek lu wuuteeg li Netanyahu bëgg ñu jàpp tëj xataa ci seen biir réew léegi eh, yàlla atte nag ñu ne dañuy def hudna insaniya maanaam pause humaine loolu mooy mooy wane ne li xewoon li xew fan yi yëpp du yëfu nit ndax bu ñu dañoo def pause boo xam ne humanitarienne la mooy la ñu newoon dara nitewu ci ndax tiim ay gor di leen bombardé te ñey xeex ak yow doo dem xeex ak ñoom nga nekk ci civil yi loolu ak bàkkaar la waaye ak rabe la ñooy ñaan nag euh, loola continuer waaye résistance bi yàlla may leen doole ba Palestine li ko dalee ci dex gi ba ca géej ga lépp delluwaat ci waa Palestine te ñu fekkee ko yàlla setal barab yu tedd ya fa nekk di al masjidul aqsa ak la ko wër di Gaza ak la ko wër di barab yi nga xam ne occupé nañ leen yëpp yàlla setal leen ci sobe yi ña leen occupé di ay sahaayina may ñu tawfiq ba ñu ñëpp ñu julli ca jàkka ja yonantu sallallahu alayhi wasallam jaaroon rañaani fekk jàkka ja féex na ci bépp sobey occupation ba fa nekk ci barke yonantu bi sallallahu alayhi wasallam buntu bi ñu bëgg jàng nag mooy buntu bi gën a am solo ci matnul axbar yi te bokk na ci bunt yi gën a am solo ci fiqhu eh, waxuma la moo gën a am solo ci mat matnul axbar ya waxuma la bokk na ci bunt yi gën a am solo ci fiqhu waaye ni ko laxdar yu traité traitement la bu nga xam ne néew na ñu traité ko noonu moo tax ku xam-xamam yaatuwut ci fiqhu bunt bi moo gën a am solo ci yow nga jàng ko ci laxdar yu ka nga jàng ko sax ci muxtasar xalil ak na mu éloquent yooyu yëpp muy baab fi axkaami sahw wala baab sahw wala baab axkaam sahw bi jàngale àttey jamaj jamaj mooy juum ci julli ba boole ca lu ca bokkut wala nga wàññi ca lu ca bokk mbaa boole ñaar yëpp la tax mu ne baabun fi sahwi lii buntu la buy jàngale attey jamaj baabun fi sahwi xabari mubtada la hada baabun fi sahwi ay fi axkaami sahw nee na wa sujuudu sahwi sujootu jamaj li salaati ñeel julli am na ñu ne laam gi bi maana fii fi salaati ci julli sunnatun sunna la muy mubtada xabar ay sujuudu sahwi fi salaati sunnatun sunna la mën nañ cee déggee ne njàngaleem yonentu yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ndax yonentu alayhi wa ku topp njàngaleem topp nga sunnaam alayhi salaatu wassalaam moo xam bàyyi mbaa yokk mba boole ñaari la danañ ca déggee loolu danañ ca déggee ne du lu war waaye sunna la loolu imaam Malik wax loolu la imaam Shafii wax waaye imaam Malik nag dafa tàqale diggante jëf jëfi julli ak wax waxi julli nee su fekkee lañu wàññi ci julli jëf la kon sujjóot ba dafay nekk lu war ndax kattanug jëf sujjóot ba dafay nekk lu war ba fare nekk condition pour julli gi wér mu ne su fekkee lañu bàyyi nag wax la mu ne kon sujjóotal ko sunna la kon sujjóotal ko sunna kon ci ngiru imam Malik bu fekkee ne lañu bàyyi wax la nga sujjoot sujjootu jamaj nee na sujjootu jamaj boobu sunna la suñuy wax lu ñu bàyyi nag lépp mi ngi ju ci ay sunna waaye farata moom ku ko bàyyi foog nga indi ko pour julli gi baax danañ indi it ak tàqale moo tax woykat ba ne sujudun al baadi bihi qawlaani hal huwa du xatmin aw istinaani wa daaka fi lqabliyi wa daaka fi lqabli wa qiila yajibu in an thalathi sunanin yurat nee na sujootu baada salaam ndax dafa war wala sunna la wuute nañ ci su fekkee ne sujootu qabla salaam la nag su fekkee la nga bàyyi mat na ñetti sunna mbaamu ëpp ko dafa war nee am nañu wax loolu su fekkee li nga bàyyi nag matul loolu benn sunna la bu foor wala ñaari sunna kon su jootal ko sunna lay doon imaam abu xanifa te nag dafa ne waajib la maanaam su joot sujootab jamaj waajib la waaye nag bokkul ci chartaay wérug julli maanaam pour Abu Hanifa te su ma defee luy waral sujoot te sujootuma mooy naa yàlla am na bàkkaar waaye julli gi baax na foofu ngay déggee njëriñal wuuteewu su sujjóot sujjóotu jamaj ndax sunna la walla farata la su dee sunna la ki ko bàyyi julleem du yàqu lu dul ñuy wax ne bu fekkee ëpp na bu fekkee mat na ñetti sunna mbaa mu ëpp ko boobaa julli gi dafay yàqu su fekkee farata la nag ki ko bàyyi jullim dafay yàqu bu dee ci ngiru abu xanifata moom def ko def waajib ndax waajib ci abu xanifata bokkul ak fard fard moo gën a dëgër waajib moom fard boo ko bàyyee julli gi dafay yàqu waaye waajib boo ko bàyyee def nga bakkar waaye julli du yàqu waajib ci abu xanifata boo ko bëggee xam mu ngi mel ni loo xam ne yonentu def koo waral sallallahu alayhi wa sallam waaye xadis jo ko waral xadisu ahad la du joo xam ne ñu bari ñoo ko solo waaye lu waree ci sunna lum ci teg ah fali nuqsaani fali nuqsaani na ak wàññi wala ñeel na ci julli sajdataani ñaari sujjut kañ mu ne qabla salaami njëkk sëlmal maanaam ku jama ci julli bàyyi benn sunna boo xam ne sunna bu feddaliku la bu foor la sunna yëpp foor waaye dañoo gën a foorante wala mu bàyyi ñaari sunna mbaa lu ko ëpp ki bàyyi benn sunna bu foor mbaa mu bàyyi ñaari sunna moo xam yu foor la walla yu woyof la wala lu ëpp loolu ci sunna mu ne kooku dafay sujoot ñaari sujoot balaa moo sëlmal keñ mu ne baada tamaami tashahudi gannaaw matuk taaya gu mujj gi yazidu dana dolli nag baadahuma gannaaw ñaari sujood yooye tashahudan taaya axara geneen ci li gën a siiw ci li siiw ci madhab malik sooga sëlmal fii laaj na leeral am nga sujoodu sahwu la wax ne boo wàññee balaa ngaa sëlmal nga koy def danañu wax ca kanam ne boo yokkee boo sëlmalee ba noppi boo wàññee yokk balaa ngaa sëlmal loolu mooy madhabul imaami Malik xaw ma leer na am déet Adja Ndioba soo wàññee bala nga sëlmal soo yokkee boo sëlmalee ba noppi ngay sujjoot soo boolee wàññi ak yokk bala nga sëlmal ngay sujjoot loolu leer na wax leen su leeru ngeen ne leerul su leeree ngeen leer na leer na ok kan moo wax loolu loolu ci ngiru kan Malik ma ok ci ngiru imam Malik ci ngiru imam Shafii sujjoot yëpp qabla salaam lay doon moo xam danga yokk wala danga ngaa wàññi ci ngiru Abu Hanifata sujjoot yëpp baada salaam lay doon moo xam da ngaa yokk moo xam na ngaa wàññi ci ngiru imaam Ahmad ibnu Hanbal lépp lu ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko defee xabla la sujootoon boo ko defee xabla ngay sujoot lépp lu ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko defee baada la sujootoon soo ko defee baada ngay sujoot loo xamut lan la ci sujootoon xabla ngay sujoot xaw ma leer na am déet wala qabla geeg ba'da gi mu wax ko ci wolof bokk <laughs> imaam Malik ci ngiram soo wàññee benn sunna bu foor mbaa ñaari sunna yu woyof mbaa lu leen ëpp da ngay sujjoot balaa ngaa sëlmal soo yokkee nga sujjoot gannaaw boo sëlmale soo boolee ñaari nga sujjoot balaa ngaa sëlmal bu dee imaam ash-Shafi'iyu rahmatullahi moo xam dangaa yokk wala dangaa wàññi bala ngaa sëlmal ngay sujjoot bu dee imaam Abu Hanifata rahmatullahi moo xam dangaa yokk moo xam danga nga wàññi boo sëlmalee ba noppi ngay soog a sujjoot bu dee imam Ahmad ibnu Hanbal da ngay seet ci xadis lii yonentu sallallahu alayhi wa mu ko defee balaa moo sëlmal la sujjootoon boo ko defee nga sujjoot bala nga sëlmal lii yonentu sallallahu alayhi wa ba mu ko defee gannaaw bu mu sëlmalee la sujjootoon nga sëlmal balaa nga sujjoot su fekkee xamuloon xamuñ da lum ci defoon ci li nga def nii nee na nga sujjootal ko balaa ngaa salmal moo mhm. bàyyi ma yeggali foofu ah, ah, teel question damay bañ yeggali bi rëcc ma léegi nag ku mel ni imaam Ahmad ibn Hanbal atteem moo a jege atteeb Malik waaye Malik moo gën a détaillé atteem moo gën a jege atteeb waaye Malik moo gën a détaillé ndax Malik dafa dem ci xadis càmbar ne yonent bi sallallahu alayhi seetlu nañ ne fu mu fi wàññee balaa moo sëlmal la sujjóot seetlu ne ni fu mu fi yokkee bim sëlmalee la no ba noppi la sujjóot seetlu nañ ne fu mu fi boolee ñaari balaa moo sëlmal la sujjóot moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama xam nga jëf ci julli ak wax ñetti xaaj la loo xam ne ponk la lu mel ni rukoo lu mel ni sujoot lu mel ni jàng fatiha lu mel ni wax asalaamaaleykum loolu moom ku ko fàtte sujoot du ko jàng fok nga indi ko ba noppi ñu soog a xool da ngay sujootam doo sujoot su fekkee ne julli gi dafa jeex nga fàttaliku ko te yàggut mën nga ko dabaatal waaye su julli gi jeexee ba yàgg nga soog a fàttaliku ne yow de bàyyi nga benn rukoor da ngay julli ga julli ga euh, baaxut yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi waa ñëwee di julli mu gis ne bàyyi na ponk dal ak yemoo ba mu dikkee nuyoo yonent daf ne ko dellul nga julli yow gaa julli woo irji fa salli fa innaka lam tusalli su fekkee ne nag liñ bàyyi sunna la mooy ñaareel bi maanaam julli benn lañ cay wax mbaañu koy jëf di ponk mooy yi ma tudd ñaareel bi lañ cay wax mbaañu koy jëf di sunna lu mel ni taaye lu mel ni jàng saar gannaaw fatiha lu mel ni yellu mooy jàng ndànk ak biral mooy jàng ca kaw yooyu dañ yooyu la ñuy jàngee sujjóot yooyu la ñuy jàngee sujjóot ndax yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama julli na tisbaar ba mu ta ba mu sujjootee ñaare ñaareelu sujjoot ci rakka ñaareel ba mu fàtte taaya jóg ba julli ga jeexee mu sujjoot ñaari sujjoot balaa moo sëlmal ñetteel ba ci ñuy def ci julli ñooy walla mooy ngëneel yi ak yuñ sopp yo ci sunna lu mel ni benn kabar wala yëkkati ñaari loxo fi ngay kabare kabaru armal sunna yooyu ku leen bàyyi doo leen sujjootal kenn du leen sujjootal soo leen su jootalee xabla salaam nag sa julli gi dafay yàqu ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na laa sahwa fi qiyaamin an julusin aw julusin an an qiyaamin xadisu daar qutni ak xaakim ak bayxaqi léegi lan mooy tegtalu Malik ci ne saa yoo wàññee da ngay sujjoot ñaari sujjóot balaa nga sëlmal mooy hadis ji nga xam ne wax nañ ko léegi na yonentu sallallahu alayhi wa sallam julli na tisbaar jóg te taayawut ba julli ga jeexe mu sujjóot ñaari sujjóot dégg nga balaa moo sëlmal nit ña def lam def xadis jàng ci Buxaari xadis jàng ci Muslim lan mooy wane ne yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama saa yu yokkee dafay sujjoot baada salaam mooy xadis ji nga xam ne wax nañ ne yonentu sallallahu alayhi wasallam julli na tisbaar julli juróomi rakaa au de quatre ba mu paree ko ndax dañoo yokk ci julli mu ne déedéet ko juróomi rakka nga julli mu daldi di sujjoot ñaari sujjoot te fekk booba sëlmal na ba noppi mooy xadiisu Buxaari xadisu dhul yadayni maanaam xadis jële atibta abdoulahi la mi ngi ci buxaari xadis ji di xadisu dhul yadayni mi ngi ci buxaari ak muslim yëpp seydna abu hurayra ne yonentu sallallahu alayhi wa dafay jullee ak ñoom sëlmal ci ñaari rakkay xadis ji solo nañ ko ay solo yu gudd yu bari dhul yadayni ci gàttal ne ko ndax dañoo wàññi julli wala dangaa fàtte yonentu sallallahu alayhi wasallam daal di leen laaj ndax li Zul Yadayni wax noonu la ñu ne ko waaw yonentu sallallahu alayhi wasallam daal di indi yeneen ñaari rakaa ba mu sëlmalee sujjootaat ñaari sujjoot sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kon képp koo xam ne dafa wàññi dafay sujoot qabla salaam képp koo xam ne dafa yokk dafay sujoot baada salaam su fekkee nag dafa boole yokk ak wàññi mu sujoot qabla salaam kan ki doon laaj lum mu doon laaj. man maa doon laajte dama bëggoon a xam eh, lan mooy sunna bu dëgër parce que dama waxoon sunna bu dëgër ak ñaari sunna yu woyof mhm. siinaani shiinaani kada jimaani taani addu sunani thamani jàppal siinaani shiinaani kada jimaani taani addu sunani thamani juróom ñetti sunna yi nga xam ne suñ leen bàyyee dañ leen di sujjootal moom la woykat ñoom la woykat bi tënk foofu ñaari siin ñaari shiin ñaari jiim ñaari taa da ko jàpp de siinaani shiinaani kada jiimaani taa'aani addu sunani thamaani juróom ñetti sunna yi nga xam ne suñ leen bàyyee war na a sujootal wal nee na juróom-ñett yi la waaye nag juróom yi ñooy sunna yu foor yi nga xam ne boo ca bàyyi da nga sujoot ñaar yu mujj yi muy ñaari taay yi soo leen bàyyee ñoom ñaar da nga sujoot bu dee benn rek nga ca bàyyi doo Hmm? siin bu njëkk bi mooy assirru mooy yellu inda mahalli sirri kuy julli tisbaar da ngaa war a yellu wala da ngaa war a biral da ngaa war a yellu kuy julli tisbaar da ngaa war a yellu danga ngaa war a wax ca suuf oh, biral mooy wax ca kaw da ngaa war a yellu mm. sunnaay yellu ñaareelu siin bi mooy suuratu sunnaay sa saar mooy siinaani ñaari siini ñaari siin ñooy eh, taaya ak wax ca kaw tashahud ak jahru astaghfirullah ñaari ñaari siin mooy ñaari ñaari yi la bëgg a bu njëkk ak taaya bu ñaar taaye bu njëkk ak taaye bu mujj lu tax ñu ne ñaari chiin mooy dangay def shahada mooy tashahud ñaari jiim yi mooy jahru ak juluusu jàng ca kaw ak toogaay ñaari taay ñooy al takbir ak tasmia wax allahu akbar ak wax sami allahu liman hamidahu yu dul yii ci sunna dañ leen di jàppee ay sunna yuñ sopp kenn du leen su jootal hmm? dégg nga de yellu sunna mu akkada la sunna bu foor la jàng saar sunna bu foor la taaye bu njëkk ak bu mujj sunna yu foor lañ jàng ca kaw sunna bu foor la allahu akbar ak sami allahu liman hamidahu boo leen boolee ñoom ñaar ñaari sunna la yuy waral sujjoot su fekkee benn rek ci ñoom nga bàyyi doo sujjoot est-ce que leer na bu fekkee benn si yéen nga bàyyi mooy kabbar allahu akbar boo par exemple boo bàyyi woon waxuma allahu akbar budul kabbaru armal nag laa wax maanaam nga doon ju nga nga jàng fatiha ak saar ba ngay rukkoo nga fàtte wax allahu akbar bi ngay ruko kooku doo ko sujjootal ndax sunna bu woyof la waaye bu fekkee danga nga bi ngay rukkoo nga da nga fàtte wax allahu akbar bi ngay siggi nga fàtte wax sami allahu liman hamida am nga ñaari sunna yu woyof da nga leen yeneen yu njëkk yi nag muy benn yu njëkk yi boo ca bàyyi moom kot danga koy sujjootal boo ñu fokk ñu fokk ñu ànd fokk ñu nekk ñaar waaye bu fekkee benn ba rek nga bàyyi ci ñoom ñaar doo leen sujjootal qabla wala doo benn rek nga bàyyi ci ñoom ñaar doo leen sujjootal doo sujjoot laa wax waa que leer juróom-ñetti sunna laa tudd ma ne juróom-ñetti yépp ay sunna yu ñuy sujootal la juróom benn yi nag boo ca bàyyi moom kottu da nga ko sujootal juróom ñaareel bi ak juróom-ñetteel mooy ñaari mujj yi nag fokkuñ nga bàyyi leen ñoom ñaar soog a sujoot boo bàyyi boo fàtte woon sami allahu liman hamidahu kese doo sujoot boo fàttee benn allahu akbar ci biir julli gi doo sujjoot waaye su fekkee fàtte nga allahu akbar ak sami allahu liman hamida da ngay sujjoot léegi loo koy sujjootal baada wala xabla fàtte fàtte fàtte lañu wax bàyyi lañu wax bàyyi tant que ñu ngi wax bàyyi rek xabla la tant que ñu ngi wax bàyyi rek fàtte ngaa def dara rek xabla la baada mooy dolli li ñu yi ñu wax ni yëpp mooy ku leen bàyyi da nga leen di sujjootal da nga di sujootal qabla soo jàngoon fatiha ba noppi nga fàtte saar jàngoo ko da sujoot qabla soo julli woon ñaari rakaa nga jóg fàtte taaya da ngay sujoot qabla soo waroon a jàng ca kaw ngay jàng ngay julli gee par exemple raka bu njëkk bi nga fàtte jàng ci suuf loolu bu dee góor la bu dee jigéen ñi jàng ca kawam loo xam ne dana ko dégg moom ki way jàng ak bu ci moom loolay jàng ca kawu jigéen siinaani shiinaani kada jiimaani taaani addu sunani thamaani hmm? loolu mooy kon nag li ñuy bàyyi di ko sujjootal pour julli ga baax mooy ay sunna su fekkee lañ bàyyi nag farata la fokk ñu indi ko moom sujjoot kese du ko defer moo tax mu ne falin nuqsaani ñeel na ak na wàññi sajdataani ñaari sujjoot qabla salaami njëkk sëlmal mooy koo xam ne dafa bàyyi sunna bu ñu feddali wala mu bàyyi ñaari sunna yu woyof mbaa yu ñu feddali wala lu leen ëpp fokk mu sujjoot qabla salaam pour julli ga baax keñ mu ne baada tamaami tashahudi gannaaw matuk taaye gu mujj ga léegi nag ndax su taayaa taaye mujj taaye gu mujj sujjoot ñaari sujjoot ndax dafay sëlmal directement wala dafay taayewaat mu ne yazidu dafay yokk baadahuma gannaaw ñaari sujood ya tashahudan taaya axara geneen dafay taayawaat nee na geneen ci li gën a ci li siw ci madhab imam malik loolu la ibnul qasim dégg nga jàpp ibnul qasim nee moom da ngay taayawaat gannaaw boo sujootee sujootu qabla salaam ba noppi waaye taayawaat boobu nag ñi ko waxit taaye bu gàtt lañ wax mooy boo yeggee ci wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dootoo ñaanaat foofu ngay yem hmm? mën hmm? bu fekkee waroo def mënoo def def baada danga ko war a noo ko indiwaatee da ngay indiwaat beneen raaka. lii loolu. da ngay dolliwaat am na loo wax nga ni like am na boo xamante ni doo def xabla doo def baax dara da nga koy da ngay indiwaat. déedéet waxuma loolu dama ne soo bàyyee farata kooku sujjoot kese kese du ko du ko réglé waaw foog nga indi ko laa wax. loolu mooy loolu mooy lan. loolu mooy lan par exemple. loolu dafa laaj détail moo tax indiwuma détail bi waaye dinaa la ci jox exemple rek exemple loolu mooy damay julli gee ma fàtte ma sujjóot benn sujjóot ci ràkka bu njëkk bi jóg di jàng fatiha ci ràkka ñaareel bi ma fàttaliku ne man de sama ràkka bu njëkk bi benn sujjóot laa sujjóot est-ce que kon est-ce damay continuer julli gi rek ba jeex ma su jot balaa maa sëlmal ndax dama wàññi déedéet li ma bàyyi farata la su jot rek mënu ko régler su fekkee ne bi may fàttaliku su jot bi ma bàyyi ci rakka ñaareel bi laa nekk maa ngi jàng fatiha wala maa ngi jàng saar rukoo aguma su boobaa fu ma mën a toll damay dellu ma def sujjóot ba soog a jóg tàmbali rakk ñaareel su fekkee nag dama rukoo ba jóg wala ma sujjóot dégg nga premier sujjóot wala ñaareelu sujjóot ci rakk ñaareel bi ma fàttaliku ne man sama rakk bu bàyyi naa ci sujjóot rakk bu njëkk ba yàqu na sama ñaareel bii mooy nekk premier loolu mooy boo bàyyee farata sujjóot kese kese du ko régler il faut nga indi ko loolu mooy maa ngi ci biir julli gi su fekkee ne maa ngi ci biir julli gi xam nga ma fàttaliku farata boobu ma bàyyi ma dem defi ko fekk rakka ñaareel bi fasoogut wala rakka ñaareel bi fasu na ma annuler rakka bu njëkk bi rakk ñaar bi mooy nekk sama première rakk ma indiwaat beneen rakk muy deuxième su fekkee gaye laay mm-hmm. def ma indiwaat yeneen ñaar mooy quatre léegi kon mm-hmm. bien que indiwaat naa farata bi ma bàyyee woon yokk naa ci julli gi kon damay sujjoot baada waaye baada bi rek réglé wut ko mooy fixé naa ko ba pare ma soog a sujjoot baada mm-hmm. loolu mooy soo yokk soo indi soo bàyyee ponk maanaam loo xam ne farata la sujjoot kese kese du ko réglé loolu mooy benn fa benn benn euh, exemple bi beneen exemple mooy man dama julli géeb bi ma ñëwee ba ci ñetteelu rakka bi ma foog ne mooy sama ñeenteelu rakka ma taaye sëlmal dégg nga de bi ma sëlmalee ba noppi ma fàttaliku ne man de bàyyi naa benn rakka parce que man ñetti rakk rek laa def est-ce que damay wax ne ah kon xabla laa waroon a sujjoot te boo waree sujjoot xabla su fekkee ne temps bi yàggul mën nga ko sujjootal baada est-ce que loolu lay def walla damay jóg indiwaat beneen rakka soog a sujjoot baada damay jóg indiwaat beneen rakka may jóg kabar indi beneen rakka muy quatrième comme yokku naa nag ndax sëlmal naa te waruma woon a sëlmal ma si jot baada salaam wala bi ma amee ñetti rakka ma foog ne julli gi mat na mataye dem bay sëlmal soog a wax ne ah man gaye laay julli te ñetti rakka rek laa def est-ce que damay wax ne comme taaye naa ba noppi naa sëlmal rek naa sujjoot ñaari sujjoot qabla salaam rek mu jeex ma soog a sëlmal damay jog indiwaat quatrième rakaa bi taaye sëlmal sujjoot baada salaam ndax damaa yokk ci julli gi moo tax ma ne bu fekkee ne ponk farata nga bàyyi sujjoot kese-kese du ko régler foog mu ñëw su fekkee nag li nga bàyyi sunna la su jot dana ko regle su fekkee li nga yokk farata la wala sunna la sujjoot dana ko régler yokk moom bu dee farata la su jot dana ko regle ndax dangaa yokk waaye wàññi farata moom sujjoot kese-kese du ko régler mm-hmm. est-ce que leer na yokk moom su fekkee ne sunna la wala muy farata su jot dana ko regle su fekkee nag mm-hmm. wàññim la bu dee sunna la sujjoot dana ko régler bu dee farata sujjoot kese mënu ko régler foog nga indi farata bi kon nag bu ñuy wax ku yokk ba mu wàññi lii lay def bu fekkee ki wàññi bu fekkee farata euh, euh, sunna la yii lañ wax yi ñu tudd nii la wàññi dafay sujjoot balaa moo sëlmal su fekkee sunna yii daf leen naa wàññi yokk ci julli gi dafay sujjoot balaa moo sëlmal su fekkee yokk rek la def su boobaa balaa bu sëlmalee ba noppi lay lay sujjoot hmm? mu ne yazidu baadahuma tashahudan axara suy sujjoot qabla salaam nag bu sujjootee ñaari sujjoot yi ba noppi gannaaw bum taaya balaa moo sëlmal mu ne na taayawaat taaya bu gàtt loolu mooy li nga xam ne moom la Ibnul Qasim tànn waaye am nañu ne du répété taaya bi loolu it solo nañ ko ci Malik te Abdul Malik loolu la loolu la tànn Abdul Malik loolu la tànn góor gu baax allaama Muhammad Ali bin Ni'mal Abd wax na ci wéyam wu rafet wax yi dikk ci loolu nee na yuciidu man qabla salaami sajada li sahwihi istinaanan tashahuda wa qiila binnadbi wa bilwujubi wa qiila laysa alcawd bilmatlubi dégg nga de nee na ki nga xam ne dafa war a sujjoot qabla salaam am na ñu ne sunna la mu bamtu taaya bi am na ñu ne sopp nañ mu baamtu taaya bi am na ñu ne war na mu baamtu taaya bi am na ñu ne sàkkuwuñ ci moom mu baamtu taaya bi kon ñaar yooyu boo ca def rekk baax na am na ñu ne baamtu taaya bi boo ta boo sujjootee ba pare balaa nga sëlmal da ngay taayawaat ñu ne loolu war la waajib la am ñu ne déedéet sunna la am ñu ne dañ ko sopp am ñu soxlawoo doo ko def loolu la Abdul Malik tànn riwaay la bu jógee ci ci Malik hmm? bu jógee ci leer na de waaw fiqhu la hmm? mën nga tànn ngir bu la neex selon bi nga xamante moo la gën a arrangé bi nga xam ne moo la gën a doy ngay tànn pas bi gën a arrangé. même chose bi gën a doy arrangé. bokkut bi la gën a arrangé mën naa mooy bila neex bi la doy mooy tey jii su ma ne la lii la Malik wax ndax lii mooy dalilam lii la Abu Hanifa te wax ndax lii mooy dalilam. yow bu nga bi ci sa compréhension dalil bi nga jàppu ne moo gën a dëgër moo war moom nga war a topp moo xam moo la gën a neex wala mu gënu laa neex. bi gën a dëgër mooy bi gën a métti. déedéet a dëgër mooy bi gën a wér ci yow bi nga bu ñu lii mooy Malik bi mu waxee ne lii lañ war a def preuve yii la joxe ci alquran ak sunna abu xanifa te bi mu ne lii la bi bi mu ne lii lii nga war a def preuve yi la joxe ci abu ci alquran ak sunna yow bi nga dégloo ñaari preuve yi bii moo la gën a doy bii nga jàpp ne kii nga jàpp ne ay preuve moo gën a dëgër ñoo gën a ñoo gën a taxaw yow bi nga jàpp ne moo gën a taxaw selon sa compréhension boobu mooy sa ngir yow boobu nga war a topp soo toppee bi gën a yomb te bële moo la gën a convaincre da ngaa def lu la neex seetlu nga ko. Mm. Mm. moo tax ngir yi boo cay topp dafay fekk moo gën a doy waaye du moo la gën a neex de donte ngir yëpp a doy nag xëy na bu ma naan moo la gën a doy mooy yow ci sa dégg-dégg foofu nga toll fa nga toll rek nag foofu lañ la foofu lañ la toll looy soo demee ba romb foofu ba dégg-dégg yi bu gën a xóot mm-hmm. you gonna have to act according to your déggin wu gën a xóot Hmm? waaye birum diine du caageenu neex caageenu doy la du caageen it's not about what you what is pleasing to you but it is about what is convincing to you according to the evidence presented to you moo tax koo rek am na am na aslëf ci ijtihaad même su fekkee jàngul am na aslëf ci ijtihaad même su fekkee jàngul tey ji waa ji dafa am benn masala bu ko jaaxal mu dem laaj ko ay borom xam-xam ñu wax ko ñaari wax ñaari wax yi nag bii la xelam gën a dal ba xelam gën a dal moom la war a def moom ndax loolay farataam waaye bu mu wax ne bi ma neex bu ma neex rek lay jël. ijtihaad mooy bi gën a dal sa xel. bu ma ne ijtihaad mujtahid mooy koo xam ne warta topp kenn boroom ij ki toll ci ijtihaad mooy borom xam-xam boo xam ne yegg na ci xam-xam fu mu mën a jëlee alquran wala mu jël xadisu yonentu sallallahu alayhi wasallam xool ne lii lii lay firi masala mi lii lañ ci war a def ndax am na bagage technique yi war pour mu mën a am accès ci atte bi lan la loolu mooy ko looloo ijtihaad ma ne loolu nag donte borom xam-xam moo ko mën nit ki amul xam-xam am na ca cër cëram cër ci ijtihaad mooy lan mooy su laajee borom xam-xam yi ñu wax ko jox ko ay tegtal bi xelam gën a dal boobu moom loolu boobu la war a topp kon mel na ni def na ijtihaad maanaam kooku looloy wàllam ci ijtihaad bien que xamul dara waaye biñ ko waxee ñaari tegtal yi fii la xelam gën a jublu lii moo gën a convaincre moo ko gën a convaincre mm-hmm. ñu ñu ñu ñu continuer mm-hmm. léegi balaa ñoo dem ci sujjat ba'da salaam masala ngi nii waa ji li dafa def loo xam ne dafay waral mu sujjoot qabla salaam ndax su baamtoo même erreur bi ci biir julli gi benn yoon lay sujjoot qabla salaam wala ñaari yoon lay sujjoot qabla salaam je m'explique kii dafa fàtte saar te ku fàtte saar dangay ngay sujjoot lan looy sujjoot ah dafa fàtte jàng saar lu muy sujjoot qabla salaam mu fàtte ko nag ci ràkka bu njëkk bi deuxième ràkk bi it mu fàtte ci jàng saar kon li war a li mu war a sujjootee qabla salaam defna ci ña def na ko ñaari yoon est-ce que benn yoon lay sujjoot qabla salaam wala ñaari yoon lay sujjoot qabla salaam Eh, jeex na tàkk li nga li liy waral sujjoot xabla salaam même su répété woo mhm. benn yoon rek ngay sujjoot mhm. ñaari sujjoot xabla salaam mhm. hmm? naka noon tamit li waral baada salaam même su répété woo benn yoon rek ngay sujjoot ñaari sujjoot baada salaam Hmm? lii waral baada salaam même su répété woo hmm. loolu nag am na benn trick hmm. mooy lii waral baada salaam su fekkee ne danga ngaa dolli rakka répétition ya su yo su la yóbboo ci ak ëpp julli ga dafa yàqu mooy lan dama dolli kem moo luy dolli kem hmm? julli julli julli ñaata rakka la ñeent soo ca doolee ñeent mooy dolli nga kem oh. ku sàggan ba julli gee nga def ko juróom ñetti rakka sa waay julli tu seen nekko julli ga yàqu na mm. julli timis nga def ko juróom benni rakk julli ga yàqu na loolu la ñuy wax mm. ziyaadatul misli dolli kem mm-hmm. loo teg loo teg sëñ Mansour ma daan wax loo teg walla ma demam <laughs> wali ziyaadati du loolu ngeen teg wali ziyaadati aji saxla ñeel dolli sajdataani ñaari sujjoot baxda salaami gannaaw sëlmal ana ki nga xam ne dafa dolli ci julli gi moo xam sunna mu akkada ci dolli wala dafa juum répété fatiha jàng ko ñaari yoon loolu la wala dolli na rakaa dégg nga dafay sujoot ñaari sujoot gannaaw bum salmale moo luy tegtal bi yonentu sallallahu alayhi wa sallam jiite ne saxaaba yi julli ñeent ñeenti rakaa mu def ko juróomi rakaa ci tisbaar bam bañ ko waxee ne ko dolli nga mu daldi di sujjoot ñaari sujjoot looloy tegtal ci ne ku dolli dégg nga da ngay sujjoot ñaari sujjoot gannaaw sëlmal wa yatashahadu aha acca dafa question dafa question wala leer na leer na waaw oustaz nee na na se na taaya nag baadahuma gannaaw ñaari sujud ya wa yatashahadu na taayawaat baadahuma gannaaw ñaari sujud ya maanaam damay julli ba sëlmal war def sujootu baada maanaam yokku naa ci julli gi lu war a tax ma sujoot ñaari sujoot ndax dama leen di sujoot rek sëlmal walla damay taayawaat mu ne da ngay taayawaat mu ne da ngay da ngay taayawaat su ma taayawaatee ba noppi ndax damay sëlmalaat mu ne waaw wa yusallimu dana sëlmal taslimatan ak sëlmal uxra geneen maanaam gannaaw boo sujjootee sujjootu baada da ngay sëlmalaat ñaari yëpp wax na leen ndax am na ñoo xam ne dañ ne doo sëlmalaat am na ñoo xam ne dañ ne doo taayawaat dégg nga am na ay uh, masala sax yu ñuy wax ci sujjootu baada salaam ñu ne kuy sujjoot baada salaam dafa war a jublu qibla loolu xam nañ ko dafa war a yéene ba mooy armal dafa wara a sëlmal gannaaw bu mu sëlmale gannaaw bu sujootee ba taaya dégg nga yii nii uh, jullu xibla ga yéene ga ak sëlmal ñu ne yooyu daf ko war a def biral sëlmal ga ak taaya gannaaw bu sujootee ñaari sujoot ya ba noppi nee nañ sunna la nee nañu sunna la loolu la ba wax ne yajibu lil baadiyi listiqbaalu wa niyatun shartan kama qad qaalu wa yajibu al ihraamu wassalaamu min gayri shartin qaalahu al waljahru bissalaami wattachahudu kilaahumaa yusannu fi mactamadu mm-hmm. du noonu du noonu eh, yokk yokk nag comme li may wax dafa am moo mën naa nekk wax mën naa nekk jëf walla déet mhm. mën naa nekk wax mën naa nekk jëf su fekkee yokku ga ci wax wax ju néew la moo xam mu bokk ci mbiru julli walla mu bañ caa bokk yokk su fekkee yokk gu néew la maanaam nit ki dafa wax wax joo xam ne bokk ci julli waaye wax ju néew la te dafa fàtte mbaa mu bokk ci julli sax waaye waxeewut ko fi mu ko war a waxee te dafa fàtte su fekkee ne lu néew la julli ga du yàqu su fekkee dafa néew te la wax bokkul ci mbiru julli maanaam dafa dafa dafa bari laa bëgg a wax te bokkul ci mbiru julli su boobaa julli ga dafay yàqu wala yokku ga jëf la te bokkul ci mbiru julli su bëree dafay yàqu maanaam jëf ci biir julli ñetti xaaj la jëf ju bari lool yaa ko tey wala tey woo ko julli ko yàqu waaw kii dafay julli mbay la sant ba siise moom fàtte na ne mi ngi julli ndax ajaa njóoba mi romb ak booli ceebi ba mu seene booli ceeb bi fàtte dafay julli mu dem sukku ca lekk ba yàlla may ko jàmm mu foog a fàttaliku ne man di dama doon julli julli ga yàqu na dafay julli ba ci kanam mu seen benn bouteille boisson mu fàtte ne dafay julli mu dem naan ba xolam sedd mu soog a fàttaliku ne da doon julli julli ga yàqu mu gis benn jaan danger la mu dem rey ko waaye fàtte ne da doon julli julli ga yàqu na bu nag rey gu gaaw la te borom bougé wut kooku bariwut wala seen na xale boo xam ne ma ngay nekk ci danger wala ab gumba bu bëgg a tàbbi ci mpax mbaa ci safara kooku farata la sax mu bàyyi fa julli ga dem defer ko dem dem dem toppatoo leen waaye julli ga dafay yàqu nag julli ga dafay yàqu nag julli yàqu loolu mooy jëf ju bari jëf ju bari moo xam boroom dafa fàtte wala fàttewul julli ga yàqu na su fekkee nag mhm. ne jëf ju néew la lu mel ni dégg nga defaraat sa mbuboog dégg nga wàccee kaala bi fii wala benn jiit romb nga daal di ko dóor benn dóor rekk mu dee dégg nga yooyu du yàq julli jëf ju jëf ju tuuti sax léeg ñu sopp ko ci julli lu mel ni ngay julli am ku bëgg romb sa kanam nga def ko nii pour mu xam ne da ngay julli wala nga gis benn yër-yër ci sa sàppe bi ci sa kanam nga dox benn jéego mbaa ñaar dem fatt ko loolu jëf ju néew la ci biir julli fàtte nga wala fàtte woo non seulement du yàqu julli waaye dañ koo sopp Hmm? léegi man may julli may julli. daal hmm? ma wax ñetteel bi daal ma wax ñetteel bi ndax ndax ngeen ngeen fàtte ko ñetteel bi mooy lan jëf ju bari ci julli moo xam mu bokk ci xeetu julli wala bokkul ci xeetu julli dafa yàq julli jëf ju bari ci julli moo xam mu bokk ci xeetu julli wala bokk ca lu bokkul ci xeetu julli mooy comme yi ma waxoon sànq lu mel ni lekk ak naan topp jaan dégg nga wala dem xetali ab xale mbaa nangam jëf ju bari jooj dafay yàq julli jëf la ju bokkul ci xeeti julli jëf ju bari ju bokk ci xeeti julli mooy lan mooy li ma waxoon sànq jullig ñeenti rakka nga dolli ca ñeenti rakka mbaa jullig ñetti rakka nga dolli ca ñetti rakka jëf ju bari la yaa ko tey wala tey woo ko julli ko yàqu na leer na de léegi nag su fekkee jëf ju bari la ju bokk ci xeetu julli te tuutiwut torop waaye bariwut torop mooy dafa digg doomu ñu ne su fekkee moo ko tey julli ga yàqu na su fekkee nag dafa fàtte waaye jëf ji bariwul trop dafay sujjoot ndax jëf la jum def ju bokk ci lu mel ni par exemple ku yokku benn rakka te fekk daf ko fàtte kooku jëf jooju dégg nga bariwul torop wala lu mel ni ab sujjoot te fekk def ko fàtte kooku daf koy sujjootal baada salaam su fekkee moo tay nag yokk benn sujjoot julli ga yàqu su fekkee moo tay yokk benn rakka julli ga yàqu na aca Adja Fatou question bi so uh, nit ki buy julli par man may julli mhm. uh, ñu sonee si buntu bi mhm. fekk fi ñuy bës pour buntu bi ci suuf ubbeeku jege na ma mhm. bës ko ñëw dellu julli waat loolu dafa yàq sama julli ñëw dellu lan nga bu eh, fekkee. bu fekkee dafa nekk sa wet rek nga laal ko nga bës ko yolu waaye su fekkee dafa nekk sa gannaaw nga bo boo tourné rek julli nga yàqu na. non dafa nekk sama kanam genre ma dox ñaari jéego te si xibla eh, eh, mhm. ñaari jéego ko bunt bi continuer sama julli. Ah, dox ñaari jéego yi ñu wax ci mbiru julli te ñu sopp ko. Mm-hmm. mooy dox ñaari jéego yoo xam ne dangay ngay da nga ab ab la soo xam ne sa kanam la nekk nga gis ne am na benn yër-yër am na fu nit xaj nga dem fa mm-hmm. yaa ngi dégg mais li nga def noonu lu ñuy sip lay doon ndax bariwut waaye bokkul ci yëfu julli mm-hmm. ndax kooka mën naa xaar bu oh, fekkee mën na xaar rek mën naa xaar loolu kooku mën naa xaar waxuma dafa yàq sa julli su bëree dafa yàq julli su bëriwul nag def nga luñ sib waaye yàqul sa julli lépp maanaam loo jëf joo xam ne nii danga koo tay te bokkul ci jëfi julli te bariwul yaa ngi dégg dañ koo sib dégg nga donte yow jàpp nga ne loo soxla la waaye du yàqu julli parce que du nécessité bu doon nécessité par exemple lu mel ni dóor euh, jiit boo xam ne mi ngi ci sa kanam yaa ngi dégg wala lu la bëgg a lor nga fel ko ak sa tànk kooku euh, dégg nga du yàq du yàq du yàq jule waaye lii nii lu mën a xaar la ndax kii sone mën naa xaar ba nga pare nga mën ngaa xaar ba pare nga soog koo bu fekkee ni que da ngay doog a commencé sa julli te bëggoo kooku noonu waaw yàgg ci suuf. léegi bu bu ci yàggee nag yaa ngi julli yaa ngi yàlla nga nekkal. yaa ngi ne julli gi de waaye gënul nag. dama déggoon also dafa amoon benn borom xam-xam boo xamante ni da doon julli dee dinaaw. Mm-hmm. après après fi mu nekk mooy lakk xaw ma saxaaba xaw ma daal. Mm-hmm. mais fi mu nekk mi ngi lakk. Mm-hmm. mais moom bàyyiwul si xel parce que ñu ngi doon concentré si bi ba yëgul sax genre fi mu fi mu nekkoon di julli ngi làpp waaw kooku loolu am na kooku mu ngi tudd Ali Zeynul Abidin hmm, mais kooku du waxuñ ne kooku dafa dafa dafa def loolu parce que moo ko tey loolu xam naa waaye <clears throat> ki nekk ci situation danger kooku dafay dagg julli gi ay julli gi dafay yàqu nag. Hmm, yaa ngi dégg loolu loolu lañ wax sànq ne tey ki gis tey par exemple non xam nga buñ ne la boo gisee ku nekk ci situation danger da ngay dagg julli nga dem xettali ko rawatina yow boo ca nekkee. waaye kii Aliyu Zeynul Abidina la tudd doomi Seydina Xuseyn Seydina Xuseyn doomi Ali ibn Abi Seydina Ali ibn Abi Talib ak Seydatna Fatima surtout yonent yàlla Muhammad la sallallahu moom ragal yàllaam moo toll woon ci yëgul ne am na lu ne ci wetam sax bay ba muy daw kooku kooku atte du ci juddoo ndax loolu tolluwaay la kooku atte du ci juddoo ndax loolu tolluwaay la waaye ki nga xam ne dafay julli mu gis danger kooku dafa war bàyyi julli ba après mu baamtu ndax jaamu yàlla doo ko def ba pare nga gis danger di continuer da ngay fekk ba ba pare nga julli. mais sa julli dafay yàqu taxul ñuy wax buñ ne kay da ngay fekk danger ba nga julli nga yàqu na mooy da ngay commencé dangay da ngay fekk danger ba mooy génn nga ci julli gi. Mm-hmm. waaye waaye nga ne yaa ngi julli nga gis euh, dégg nga gumba par exemple ku silmaxa di jéggi nga gis ne mu ngi ci danger nga bàyyi ko mu dee yow am nga ci responsabilité mm-hmm. dang ci doo wax ne kenn du la wax amuloo lay ne man dama doon julli mënuma koon dagg déedéet danga war a bàyyi julli nga dem xettali ko mm-hmm. soo ko bàyyee mu mu mu kii ah, tu es responsable mm-hmm. hmm? yaa ngay julli gis nga xale buy raam jëm ci safara si nga ne man damay julli déedéet da ngay dagg julli nga dem nga suufe ko après nga commencé waat kooku farata la ci yow nga bàyyi julli gi loolu nag moom bu dee ci yow la danger bi bu ci la rawati ndax bu dee keneen la ñu ne la daggal julli bu fekk yow yaa ngi kii nga dégg ne kër gi mi ngi lakk da ngay bàyyi julli nga dem wuti lu ko fay

dafay dafay weesu loolu ka exceptionnel la su ko defee na nga mën a jullee rek ngay jullee su fekkee ne ñaa ñii mën nañoo julli buñ paree ñeneen ñële di leen ñële di leen défendre suñ paree ñëw ñële ñëw julli comme ni ko yàlla waxee yonentu sallallahu alayhi wasallam kuréel bii nañu ànd ak yow kuréel ba la taxaw après kuréel ba la ñëw ñële baax na su fekkee ne yéen a ngi ci digg xare bi te balaa ngeen pare xare julli gi dana weesu te mënu leen a def sàppe sax ngeen julli ca biir xare ba nangeen ngeen di moytoo jaas yeeg yooyu ca ngeen di yéene ngeen julli. ni ci biir xare bi sax danga ñu bëgg nga julli te fekk yaa ngi ci biir xare bi na nga mënee rek. Mm. nanga nga mënee rek dootoo su jootati ndax boo su jootee kii bi la na mënee rek. Mm-hmm. mooy ñi nga xam ne dañ ne dégg nga ca loolu mooy julli ragal. loolu ka exceptionnel la maanaam julli bu naree weesu noo mënee rek nga koy defee noo mënee rek nga koy defe dégg nga am na nag ñu ne da kii ba pare nga julli waaye loolu alquran moom lim yaxal mooy su fekkee yaa ngi ci xare yow yonantu bi sallallahu ak saxaaba yi na def ñaari groupe groupe bi ànd ak yow julli ñële défendre buñ paree groupe bale julli ñële ñi doon julli défendre léegi hmm, ñi nga xamante ne dañoo nekk si cours d' examen euh, di def examen yoo xamante ne dañuy examen bi dafay def cinq heures de temps quatre heures de temps te moment bi heure di julli di jot ñoom ñu ngi si biir classe salle d' yi di def seen examen loolu gàntu la wala du gàntu. déedéet du gànt parce que ça dépend ci ban ban heure la ñuy tàmbali ndax julli dafa am dafa am euh, flexibilité. par exemple ki nga xam ne nii dafa tàmbali examen am euh, let's say euh, midi te julli bi dégg nga euh, dana dana dana jot maanaam te fekk tisbaar jot na par exemple te tisbaar bi peut-être dina dem trois heures quatre heures cinq heures wala nangam mu mu commencé balaa tisbaar tisbaar bi yaatu na par exemple dégg nga nag kooku <clears throat> ñaar moo mën am ci examen bi mu dagg examen bi mu julli su ko leeree ne waxtu baa ngi génn mu julli après mu ko ne examen parce que examen booy mën a def man nga dagg nga julli ñaari nga julli li ngay julli nga continuer ñaari min ñetti minute yaa ngi dégg wala bi ngay pare examen fekk waxtu daru waxtu moxtaar bi jotagut jeexagul wala nga julli ci waxtu daruri bi fekkee ne ah, fekk nga fekk ne julli nga ci waxtu daruri bi te mënoon ngaa julli avant am nga bakkaar waaye julli nga ci waxtu parce que waxtu daruri yu tisbaar par exemple mu ngi jeex timis mhm. yaa ngi dégg loolu la cest dire que tey ci suñu borom xam-xam yu euh, bay si ñu ci bëri da ngay ji sax ñu ne ki nga xam ne dafay dafay liggéeyi te xam na ne balaa moo pare dégg nga euh, waxtu bi dafay passé bu fekkee ne jamono ba muy commencé tisbaar jot na ñu ne ko na julli tisbaar ak takkusaan wala suy pare fekk tàkkusaan bi jeexagul na boole tisbaar ak saan ci waxtu saan bi ñu xiyaas ko ci kuy julli am na ñuy wax loolu ci kuy tukki ñu xiyaas ko ci kuy tukki am na ñuy wax loolu yaa ngi dégg kii yi taxi nga xam ne buy commencé tisbaar jot na te balaa moo pare eh, taxi bi shiftam di kii timis dana jot te mënula wàcci dégg nga ñu ne ko mu boole ñaari waaye man dama naan ko jullil tisbaar bu saan jotee nga gaare nga dem julli ji waaw su demee nag ba mu nekk cas majeur mu def loolu lu tax parce que tegtal bi mooy Seydina Abdullah ibn Abbas nee na yonentu sallallahu alayhi wasallam mos na boole ti tisbaar ak takkusaan te tukkiwul woon ñu ne xëy na ngàntaa tax loolu mooy tegtalu ñi nga xam ne dañuy boole looloo tax suñu mbokku chia yi ñoom ñetti yoon la ñuy ñetti waxtu la ñuy julli ñoom ti tisbaar ñoom dañuy julli suba ti tisbaar ak takkusaan dañ koy boole timis ak gee ñu boole ko ñoom noonu la def waaye ñun nag defuñu noonu ñun ngant mooy tax ñu boole ngant lu mel ni tukki wala lu mel ni dégg nga euh, feebar wala lu mel ni yàlla ji di taw wala yu mel noonu am nag ñu ci dugal comme cas bi nga wax ni par exemple su fekkee ne euh, exemple bi dafay jël five hours nga five yooyu ñaari bu fekkee ne par exemple tisubaar la tisubaar ba ba timis du five hours ñu ne boobaa su fekkee bi ngay commencé tisbaar jot na nga boole ñaari bu fekkee ne bi ngay pare timis du jot nga boole ñaari ci heure tàkkusaan ci ci ñi gisee noonu waaye man nag bu doon man dama naan la nga julli tisbaar bu jotee parce que fo saal bi ngay defee examen dégg nga let's say examen bi 60 minutes la war a jël ma jël ci 60 minutes yooyu ñetti minutes ma dem julli ma ma ma ma ma taxaw ma julli après ma continuer sama exemple mais am na exam yoo xamante ni ñoom duñ la may pause. non non da ngay you lose those minutes. yeah for your prayer. <laughs> yes man I will lose minutes for my salah parce que examen buy tax man duma ma man jaraluma ko. su fekk non lay soo waxee mooy doo mën mm-hmm. a dikk dagg di dem jël trois minutes di julli. Mm-hmm. parce que mm-hmm. like is proctor proctoring exam la duñ jox benn pause. yeah ba duñ la jox benn pause mooy trois minutes yooyu ngay jël let's say kiy def exam dafa soxloon dem use restroom bi dañ koy wax doo ko use. ça dépend si am na session yoo am am am with you am with you maanaam those minutes you lose them but nobody can tell you you cannot use the restroom. even if ma foofu nga koy kii julli bi tamit bu ñëwee jàppal ne yow deux minutes wala trois minutes yooyu ngay julli même suñ la ko joxul yàlla jar ko ëpp. that's man loolu mooy sama position. léegi nag ñu jël masala bu mujj bi pour tey ñu ñu mooy waman naqasa wa zaada sajada qabla salaami waman naqasa ku wàññi benn sunna mu akkada lu mel ni saar mbaa yellu ci barabu biral mba biral ci barabu yellu wa zaada mu dolli moo xam la mu dolli benn rakaa wala benn sujjóot la ci même julli gi wàññi na ci yokku na ci sajada na sujjóot qabla salaami balaa moo salmal Mhm. du noonu wa man naqasa ku boole wàññi wasaada ak yokk sajada dafay sujjoot qabla salaami njëkk muy salman wa naqasa ku wàññi na sunna bu ñu feddale benn ba ñaar wala ñaari sunna yu woyof mbaalu leen ëpp wasaada mu dolli ci julli gi misaal mooy wàññi na ñaari allahu akbar yu dul armal ba pare yokk na ci même julli gi wala wàññi na saar ba pare yokk na sujjoot ci biir julli fa innahu naka kooku yasjudu dafay sujjoot qabla salaami njëkk muy sëlmal loolu mooy waxi imaamu malik rahmatullahi alayh wax naa leen sànq imaam shafii moom dafa ne loo mën a def ci saxu luy waral sujjoot balaa nga sëlmal ngay sujjoot abu xanifata ne boo sëlmale ba noppi ngay sujjoot waaye lii suñ tegtal ci ne ku yokk gannaaw boo sëlmalee ngay sujjoot mooy liñ wér ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam julli na tisbaar mbaa tàkkusaan sëlmal bi mu amee ñaari rakaa zul yadayni fàttali ko dum ko zul yadayni laaje ndax julli gi dañ koo wàññi wala da ngaa fàtte mu ne wàññiwoo ko fàttewuma wàññiwuñ ko fàtte mu ne ko ah am na bu ci am de yonentu laaj ndax li zul yadayni wax am na zul yadayni mooy borom ñaari loxo yi ndax loxo mi dañoo guddoon moo tax ñu naan ko ñaari loxo yi ndax hmm? li Zul Yadayni wax noonu la ñu ne ko waawo yonentu sallallahu alayhi wasallam jóg yeggali julli gi maanaam indi ñaari rakaa bam noppee ba sëlmal mu sujjootaat yeneen ñaari sujjoot fekk ma nga toog sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tegtal nag ci ne ku wàññi da ngay sujjoot balaa ngaa sëlmal mooy xadiisu yonentu sallallahu alayhi sallam julli gi mu jiite nit ñi dégg nga wax nañ ci riwaaya ne la mu julli ñaari rakaa fàtte taaya toogut taayawut nit ñi jóg ànd moom biñ demee ba mu war a sëlmal nit ñi di xaar mu sëlmal mu daldi di kabbar sujjóot ñaari sujjoot balaa moo salmal mhm. moo tax woykat ba ne wal baadi fi tariqati nucmaani yasjudu wala yusjadu li zaydi wali nuqsaani nucmaan mooy abu xanifata day nga dee moom loo mën a def rek sujoodu baada la moo xam yokk la wala wàññi wa shafii la wa shafiiyu lahuma alqabliyu imaam shafii moom yokk ak wàññi yëpp qabla salaam rek wa ahmadun madhabuhu aljaliyu ahmad nag madhabam mooy lan an alladi thabata anna ahmada min qabla aw min bacdi fihi sajada min qablina aw min bacdi min qablu aw min baadu fihi sajada falyaqtafi atharahu lépp loo xam ne xam nga ne yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam qablu la ci sujootoon sujootal qablu lu mu sujootoon baada sujootal baada wa ma jahil falyaqtafi atharahu wa ma jahil sujudahu alqabliyu sujuduhu alqabliyu fi fi kulli nuqil mu ne lépp loo xam ne nag réeree nga lu ci yonentu defoon mu ne da nga koy sujootal qablu mu ne waaye nag wa malikun madhabuhu tafsilu waqad qafa waqad qafa atharahu xalilu malik nag moom moo taqale comme niñ ko waxee woon ci euh, début bi soo yokkee nga sujjoot qabla salaam euh, baada salaam soo wàññee nga sujjoot qabla soo boolee ñaari nga sujjoot qabla salaam waaw loolu la Malik wax ci mu watta bépp jamaj boo xam ne wàññi la ci julli mu ne sujootam mooy qabla salaam bépp jamaj boo xam ne yokku la ci julli mu ne sujootam mooy baada salaam mhm. sallallahu ala maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam xaaral lii moom dañ ko ci boole dañ ko ci boole wa man nasiya sujud al qabliya waaw euh, bu dee sujjoot yokk ak nag mu ne dañuy notal côté wàññi bi notal côté wàññi bi wa man nasiya sujjoot al qabliya xatta sallama sajada in qariban kii wa nasiya ku fàtte na mu as sujjoot as al qabliya bay ko ju qablu xataa sallama ba mu sëlmal sajada naka sujjoot in ndem nekk na qariban di lu jege kii dafa waroon a sujjoot balaa moo sëlmal mu fàtte ba sëlmal soo ko fàttaliku ne dafa waroon a sujjoot su fekkee yàggul na ko sujjootal maanaam na ko def muy baadu rekkon su yàggee nag mu ne wa in taala su yàggee maa bayna nsiraafihi diggante sopp soppeekum maanaam pareem ci julli Ah, ak fàttaliku sujootul qabli qabli yu maanaam bi mu bi mu paree julli ak bi muy fàttaliku ne dafa waroon a sujoot qabla salaam dafa yàgg aw xaraja walla mu génn minal masjid yàggul gaa waaye xas na génn ja mu ne batala yàqu na as sujoodu ba wa batalat yàqu as salaatu julli ga daf koy baamtu loolu ndax mutlaqan la mu ne déedéet in kaana ndem sujootu qabla ba murattaban dafa waroon a def mu tego muy luñ teg an thalathi sunanin ci ñetti sunna wa illa su fekkee sujootu qabla ba matul ñetti sunna ñaari suna la wala benn sunna la fala tabtulu julli ga du yàqu ngir yàggaayu fàttaliku ga wala yàggaayu fàtte ga buntu bu am la nag masala bu am solo la kii dafa dafay julli fàtte uh, yellu wala fàtte biral fàtte na biral fu mu waroon a biralee maanaam jàkk rakka bu njëkk bi daf ca waroon a wax ca kaw mu wax ca ndànk yaa ngi dégg rakka ñaareel bi mu fàtte ca taaya par exemple ñaata sunna ñaari sunna fàtte toog ñetti sunna ndax taay ak toogaay ba ay sunna lañ maanaam fàtte na ñetti sunna dafa war a sujjoot balaa moo sëlmal mu sëlmal nag ba noppi soog a fàttaliku sujjoot ba su fekkee ne ba mu sëlmalee ak bi muy fàttaliku sujjoot ba yàggut mu ne na ko sujjóot julli ga baax na su yàggee julli ga yàqu na ndax mën na ñetti sunna su yàggut waaye génn na jàkka ja julli ga yàgg na julli ga yàqu na ndax mën na ñetti sunna su fekkee ne nag lim bàyyi woon benn sunna la mbaa ñaar même su fekkee ne ba mu koy fàttaliku yàgg na wala yàggut sax waaye xas na julli même su fekkee ne euh, gën na jàkk ja gannaaw ñaari sunna la julli ga du yàqu léegi nag lan mooy yàgg ah luy luy yàgg hmm? mën na ay mois ay jours. Mm-hmm. loolu mooy yàgg déedéet yàgg boroom xam-xam yi am nañ ci ay xalaat ñu ne yàgg moy lu toll ni boo doon julli ab rakka lu mel noonu ku mel ni Abu Ishaq wax na ne Shafi'i wax na ko am ñu ne yàgg dañ koy seet rek ci aada ci aada lan mooy yàgg ah, lan la ñuy jàppee ne mooy yàgg mm-hmm. ku mel ni abu ali abu ali eh, abu ali nee na yàgg moom pour moom mooy lu toll ni diiréeb julli ba nga bàyyi ba nga doon julli maanaam su fekkee ne géye laa doon julli su ma toogee temps boo xam ne nit mën na caa julli géye te fàttali soo ko fàttaliku kon yàgg na su fekkee temps bi gën naa tuuti noonu yàggut su fekkee julli ga ma doon julli suba la su ma toogee temps boo xam ne nit mën na caa julli suba mu ne looloo yàgg hmm? looloo yàgg am na ñu ne yàgg mooy lan mooy temps bi nga xam ne mën nga cee def baqiyaatu saalihaat boo jullee ba noppi bu bu rombee loolu ñu ne yàgg na waaye nag waaye nag waaye nag bu ñu delloo ci njàngaleem yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam question yàgg bii dafay nekk problème ak question génn jàkk ji dafay nekk problème xam nga lu tax yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi bi ñuy wax sànq dafa sëlmal ci ñaari rakkaam yi benn ci riwaaye yi dafa ne yonentu sallallahu alayhi bim paree ci julli gi dafa dem toog ci benn ëkk ci ëkki jàkka ji maanaam ci benn bu doon tey ñu ne pilier ci pilier wu ji mm-hmm. nit ñi daal di gaawantu di génn te ci ñaari rakkat la sëlmal yaa ngi dégg ku mel ni abu ku mel ni aboubacar ak seydina omar ñoom buñ gisee yonent bi def dara seen wegeel ci yonent bi tax na ñemuñ ko sax laaj te ci ñaar ràkk la sëlmal zul daal di ko laaj bi mu ko laajee yonent ndax dañoo wàññi julli wala da ngaa fàtte mu ne ko benn amu ci mu ne ko ah kay yonentu sallallahu alayhi wasallam daal di laajte ndax li day yadayni wax dëgg la ñu ne ko ah kay mu daldi di jóg mottali julli gi bi mu paree mu sujjoot kon gis ne ne yonentu sallallahu alayhi wasallam pare na julli dem na toog fële ma nga jàpp njàmburam am na am na ñoo xam ne déjà génn nañu discussion am na moog Dul Yadayni laaj na saxaaba yi ñu confirmer mu soog a ñëw mottali kon génn jàkka ji problème la parce que ñi génnoon jàkka ji seen julli yàquwut dégg wax ci ñi génnoon jàkka ji seen julli yàquwul donc loolu waaye nag ah ñu ay ndonga daara lañ ay ndonga daara lañ Mm-hmm. wa man nasiya ku fàtte na mu nag a sujjood as sujjood al baadiya bay ko ju baad mooy sujjood bu ñu war a def gannaaw salmal sajadawu na ko sujjood walaw même su ko fàttalikoo baada aamin gannaaw at ndax sujjoodu baada kat toraxal seytaane rekk la maanaam kii dafa yokk ci julli gi war a sujjoot baada salaam mu fàtte ko mu fàtte ko toog na ñaari weer soo ko fàttaliku ne man de sama julli ga ma julli woon ca Saint-Louis Missouri ba ma seetee ñoom njóoba amoon naa ci baada salaam yokkoon naa ci dama waroon sujjoot baada salaam dama koo fàtte ndax damay baamtu julli gi ndax danga koy baamtu déere da ngay dem rek jàpp su fekkee amuloo jàpp nga daal di dem su jot ñaari su jot ya taaye sëlmal mbaa nga sëlmal ci ne doo taaye ah, benn kilifa Abdul Xaq nee na lenn ci sëriñam nee nañ ko ne wax nañ ko ne ko su fekkee nag lamu yokkoon dégg nga maanaam su fekkee ne julli ga julli farata la woon heure bu mu ko fàttalikoo rek lay dem su jooti su fekkee waxtu wuñ teree julli la mu su fekkee ne julli ga julli naafila la woon ci waxtu yu dagana naafila rek la koy lay indi su joot boobu mu fàtte woon mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax question waxtu bi ma doon wax ne bu fekkee ne ñetti sunna la su yàggee julli gi dafay yàqu loolu mooy li siiw ci madhab mi am na ñeneen ñu wax loolu am na ñu wax ne julli ga du yàqu même su fekkee ne ëpp na ñaari sunna mhm. xam naa ne daal <clears throat> mu ngi noonu dama noonu tey li ñuy jàng du bari waaye mujj na gudd li am solo daal mooy sujjootu sahu ndax waajib la walla sunna la bu dee waajib la ki ko bàyyi jullim dafa yàqu lu dul nag waajibu Abu Xanifata ki ko bàyyi def na bàkkaar waaye jullim yàqu su dee sunna la kon ki ko bàyyi jullim du yàqu ki wàññi ñaari sujjóot lay sujjóot balaa moo salman su fekkee ne sunna mu akkada la wàññi mbaa ñaari sunna yu woyof ba ko ëpp ki yokk gannaaw bu mu salmalee lay sujjóot ki boole ñaari balaa moo salman lay sujjóot bu dee madhabu malik bu dee madhabu shafii sujjoot yëpp balaa nga salmal la bu dee madhabu abi xanifata sujjoot yëpp gannaaw salmal la xam nga ko kon la nga bàyyi yàgg naag yàggut yëpp bari naag bariwul yëpp mën ngaa sujjoot bu dee ahmad ibn hanbal nag dañuy seet ndax lii lu ci yonent bi sujjootoon suñ xamee ne qabla la woon mu sujjoot qabla suñ xamee ne baada la woon mu sujjoot baada suñ ko xamut